mbégte ñuy am jàkkaarloog yéen ci seen chaine chaîne Dakaractu TV rawatina seen émission redevabilité jël version safar ñu ngi fii ci Touba Mbacké ci dëkk bu sell bi ay série d'entretien yi ñu amal ak kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci. dëkk bi di waajal bu baax a baax 18 safar euh, ñaare moo xam ñuy way politique wala nekk euh, nit dune tey ji nag dañuy dalal ki nga xamante ni bokk na ci yenn ci ay responsable politique yi nekk ki nga xamante ni moom moo di tubaa di ki nga xamante ni moom moo di Serigne Abdoul Ahad euh, Seck ñu gën ko xam ci Sadaga di honorable député à l'Assemblée nationale di responsable responsable politique également fii Touba honorable député ñu ngi lay nuyu di la dalal. Euh, jërëjëf Badara ñu ngi lay nuyu. di nuyu mboolem équipe bi nga àndal. Mhm. di nuyu mboolem ñuy yëngu ci site bi ñuy wax Dakaractu. Mhm. di nuyu ñuy seetaan ci biir réew ak bitim réew. tout à fait di ñaan sëriñ taxa mu yàgg fi te wér. Mhm. Euh, daanaka euh, Dakar gi ngeen fa yéen ñëpp yéen a ngi Touba jamono ji Euh, jamono ji ñuy enregistré émission bi sax fekk na président de la république ngeen euh, daal di koy gunge mu dem ñibbi alors d' abord yéen responsable politique yi di waajal li nga xam ne moom moo di safar bi président de la république yi ñëw nan nga jàngatee ñëwam ci dëkk bu sell bi ak li nga xam ne mooy kàddu gi nga xam ne yëkkati na ko fi. xam nga euh, Baba Badara Touba. Mhm. dëkk boo xam ne dëkk bu am solo la. dëkk boo xam ne dañoo wax ne yonent yàlla Isaa mhm. moko ko njëkk laaj suñ borom suñ borom joxu ko te ne ko da am kum ko dencal mhm. kim ko dencal ahmadu la ahmadu euh, moy ahmadu bamba mhm. lolu mu doon dëkk boo xam ne li ñu wax sajaratun kharabtuha bi yaddi la ndax suñ borom moko ko jëmbat ci loxoom mhm. te lolu taxna xewal gi am fi am go xamne bu ci jamono safar mbégte la boo xam ne dañ ciy santle yàlla Serigne Touba. ci li nga xam ne mooy liggéey bi mu ko jox mu liggéeyal ko ko ba mu noppi te xaddam ma rëyu ci nit kenn rëyu ko en même temps mu boole ci it euh, suñ borom mu ñaanul suñ borom ne ko nang ma garanteel sama ruu ci yooyu yëpp nag nga xam ne méttit bi nga xam ne mooy méttit yu ñu ko doon dal moom la waxoon rek moom la bàyyee woon yaram nga xam ne mettitu yaram wi leen mën na koo muñ mhm. ba tax tey ñu koy santale yàlla mhm. moo waral sëñ Muntaxa woote ko woote bu mag boo xam ne daan taalibe yi ku di jullit ak foo mën di nekk ci àddina loolu nag tax na tey président de la république mhm. en tant que président de la république Sénégal waaye en tant que taalibe Sëriñ Touba boo xam ne ñun am nañ ci lu ñu leer boo xam ne Touba Euh, mooy léppam. te mu di ko wane chaque jour bu ñëwee Touba. kon nag tey ñu ngi koy sant gërëm ko ci ñëw gi mu ñëw Touba ak dem gi mu dem ci université Cheikh Ahmadou Bamba bi dem visite ko ak li mu engagé ci Touba ci assainissement. loolu lu intéressé dëkk bi la te lu ñor Touba la. Mhm. absolument alors dina baax ci yéen député yi parce que moom mu ngi koy wax neena na euh, bi di ñëw bi ci topp yëpp day tombeek nawet. Mhm. donc war nañoo baral lépp luy liggéey ci wàllu assainissement ak ndoxu Touba bi ngir euh, xoddile ko balaa ngaa lakkale. alors yéen député yi dina bokk tamit ci seen taxawaay ci assemblée nationale ngir waajal li ni mel parce que ñiy jógee ci àdduna bi di ñëw Touba di màggal si ay mbooloo mu takku lañ macha allah. xam nga màggalu ren gi. fi dugg sax moo metti lool ndax dafa tasante ak nawet bi ba nga xam ne lu metti la ci dëkk bi ndax taataa yi dafay bari ak euh, mbedd yi nga xam ne rappajoono taataa yi ci kaw tali yi ak ci mbedd yi mais loolu it euh, état bi góorgóorlu na ci ba def ci ay pexe ànd ko ak commission bi nga xam ne moo yore Euh, com moo yore commité bu màggal mhm. comité organisation organisation Serigne Bass Abdou Khadir ko mhm. ñu ngi koy siyaare bu baax a baax ci njàmbaaram ak wane gu mu wane boppam ci liggéeyal Serigne Touba mhm. wane gu mu wane ak taalibeem ci liggéeyal Serigne Touba ak woogum ko woo ñëpp bokk ko ak ñoom loolu it war tax na euh, état bi yónnee na fi ay camion yoo xam ne dañoo manque mbedd yi libéré ko ànd ko ak euh, comité bi ba tax na loolu am na saafara mu bu noppee nag yooyu doo a ñëw yooyu weñ yi ak yeneen yooyu mairie Touba def na pexe euh, man la ko dénkoon maa ko yoroon mu pomp dëkk bi pomp boo xam ne pomp bu awib solo la boo xam ne tax na yooyu ak weñ yi mën a wàññeeku ci dëkk absolument alors boo nekkoon élève nekk ci biir classe man du ma nekkoon maître tey dama lay bindal absentéiste parce que moment bi ngay nekk Touba doon gàttandu président de la république moment boobu woo nañ leen plénière assemblée nationale teewul na yaa ngi ci dëkk bi sell bi toog lan la da nga méngalewul Touba Serigne Touba ak assemblée nationale ak ndomb bi ñu la takkal wala déet. déedéet man maa yee. d'autant plus que yéen yéen a ngi wax Sonko absentéiste la duñ ko gis assemblée nationale. Sadaga bi ñu doon gis engagé tey jii nii gis nañ ko Touba mu toog moment bi nga xam ne plénière mu ngi am ci assemblée. man maa baaxoo. Mhm. weeru safar fu mu démarré fu mu toll fu ma ne ci àddina bi rek Touba laay toog fi mhm. bëgg xéewal yépp wàcc sama kaw poussière bi yépp wàcc sama kaw mhm. ma am ci ngërëmal sëñ Touba laa ci sàkku moo waral budul woon liit bu ngeen ma seetloo bu màggalu Touba xasee dugg paleñeer yi ñu daan am yëpp damay ñëw Touba ba mu jeex <laughs> ndax lu tax ab taalibe sëñ Touba la ñu woote ci dëkk bi mbale woote ci dëkk bi yeneen yoo xam ne dañ ko war a defal dëkk bi ak préparer sa kër ak gan yeneen <laughs> yooyu bu fekkee ne ab taalibe laa yaakaar sëriñ Touba dëkk ci dëkk bi <laughs> ak lu ma mën di am nag sëriñ Touba ma ko gën moo waral du ma dem tey jii président Macky Sall bi mu ñëw bu fekkoon ne président Macky mooy ñëw rek loolu la mën na maa dem ndax lu tax mooy yéen ko gisandoo amul teertu parce que xëy na président de la république gis-gisam bi tax mu nañu bu leen teertu mooy tey boo seetloo ajjuma mu ñëw fi ci yoor yooru ajjuma buñ ko teertoo ci dëkk bi ay bruit dana am ba yàq lenn ci julli gi te ay Touba Touba lépp ay ay ay ay jàkka la mu ne nag nañ ko may wax dëgg yàlla moom jërul teertu day seyaar rek dem. lii moo indi ñàkk gi teew. konoon tey manoon na maa dem wuy ji. mais loolu teewu ma li ma téye mooy safar ji nga xam ne dama cee bëgg a saf saf loolu rek moo ma téye. jërëjëf bu bu bu weesoo wàllu politique bi sa organisation ak ni ngay gis nañ kër gi macha allah ba ñuy dugg ci gan ni tàmbali neen ñëw ci nan ngay wajale safar bi ak gan yi ngay tertu en général fan joggé ak ci lim bu fekkee japp nga ci lañu wara don ak lan nga ci dépenser euh, xeyna sax copper gi wax ko dina xawa doy war mais euh, bugg nañ xam tuuti ci nan ngay wajale mbir mi xam nga ñun safar niñ koy wajale moy bu weer wi démarré rek fep fuñ doon yoxé dépasse dañu yok suñ dépasse ñett yoon weer bu démarrer manam triplé ko ñett yoon fuñ doon joxe dépasse rek mo xam daara ja la toli mo xam kër gi la mo xam yeneen yi nga xam ne suñu programme la ci ñun la nek suñu kilifteef la nek mhm. dañuy yok dépasse bi ñett yo aw sas la wala man mako saso ngir liggéey ko Serigne Touba mhm. dama nan dama yok parce que mbégte la ko jappé bu awer diké dama nan mbégte ñewna comme nee ñe nek sawara sax dañuy yegné ne wi ñewna mhm. kon ñi nek adina saf di wax moo tax ma ne su weer wi tàmbalee rek damay woo jigéen yi ñëw toog ma ne leen lan ngeen doon dépassé ñu ne nàngam la ma ne def naa ko ñetti yoon daal di koy génne jox leen <laughs> tool yi yeneen ak yeneen ma def ko dépasse boobu nag du waroo ak li ñu wax ginaar yi nga xam ne dama koy joxe. <laughs> nga xam bi set sasoo naa juróom-ñaari ginaar yoo xam ne maa leen koy joxaat boole ci te du bokk ak dépasse dara loolu lu tax ma wax ko <laughs> mooy li ma la wax bu ko defee bu ñu defee ab diir ñu def xar nga xam ne moom mën naa ne dib gi bi nga xamee ne tàmbali naa ak tey mhm. kenn ci kër gi du la wax benn bis bu mu lekkul yàpp loolu du am ndawal munta nekk mhm. lu tax ma wax loolu ceeb bi na neex añ bi na reer bi na neex ndax lu tax mooy dañoo war a déggal mhm. sunu njaboot ci lañuy ñuy tàmbalee ndax bu màggal gi xasee ñëw ba dugg rek njaboot gi am na loo xam ne sax mënatuñ ko la waa teral gane lañ ko tudde yàlla dogal na fii ma nekk Euh, social la ñuy def parce que moo ëpp lu may def man responsable politique yi may jàppale li ma am mu néew mu bari danaa leen ci dimbale <laughs> bu loolu wéyee ñi nga xam ne ay dëkkandoo lañ mu néew mu bari ma dimbale leen <laughs> ñi nga xam ne xamuñu ma dañoo dégg sama tur rek Abdoulahat am yaakaar te man du ma tas yaakaar <laughs> ndax gëwuma ko boo dikkee boo waxee du ma néeg a jox nit ñaari téeméeri dara du ma néeg jox nit téeméeri dërëm du ma naw ab fukki junni yu ma jox nit noonu laa koy doxee li ma am rek dinaa la ko jox pour nga xam ne kat lii laa fi am ah wax dëgg yàlla am maa la ko bàkkeeloo loolu nag tax na waxuma la loolu mais sareet yi fii ci ay nit yoo xam ne dañoo dëkk ay saalum maanaam ay dawalkati sareet lañ fii lañ ñu bari fii la ñuy daal boo génnee ci bit da nga leen seen romb nga leen mhm. ñu bari trop am na ñoo xam ne wàccaguñ ñooñu am na ñoo xam ne fii may wax yow. amul ci kenn ci ñooñu koo xam ne yi ci ëpp moo leen rombee dinaa leen xam damay xëy suba fii ci kër gi toog ay nit di yow di yéeg wala ma nekk fii ay nit mais du ma xam wax dëgg yàlla kii fan la dëkk ak fan la jóge dama jàpp rek ne kër gi kër sëñ Touba la màggal gee jot ubbi nañu suñu bunt loolu lañu sëñ bi digal li ci def sama yoon nekku ci loolu leer na alors bu ñu desee si màggal bi comme ni nga koy wax léegi wàllu social bi baax na gis nañ ne Touba macha allah borom barke yaa ngi fi mais bu weesoo responsable politique yi nga xam ne li leen yàlla dénk yéen a leen koy jàppale. est-ce que ci safar bi yéen a ngi bàyyi xel tamit yenn ci ay dëkkandoo yoo xam ne seen yoxo jotewul seen i ginnaaw ci li nga xam ne moo di bëgg nañ tamit dimbale wala bokk ci mbir mi mais yégewuñu foofu ci doole. mais xam nga safar dafa yomb. Mhm. sëñ Touba daf ñu ko tegal ci aw yoon yéen ñi am man a berne berne leen gan nit ñi ki munta berne demal lekk yàq berne yéen a yem loolu neexam yomb na amul jafe-jafe mais du tee nag ñoo ñu nga wax des na leen dimbale moom laa la expliqué léegi parce que du mën a ñàkk loolu état wax naa la ko léegi ceeb bu bari la ci génn pour topp ñooñu gis naa fii ay nit yoo xam ne lu mel ne servir le Sénégal gis naa ñoom it dañuy jël ay ceeb ak i nag di ko jox ay diwlin di ko jox ñeneen mhm. di ko jox nit ñi nga xam ne ñoo ne ci ginnaaw àll bi loolu servir le Sénégal da koy def mhm. ku mel ku Daouda moo koy coordonné fii ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne dañuy def lu mel noonu safar dafa doon weer woo xam ne su duggee murit yëpp seen yaram day tàng saf sàpp lay def mhm. jàpp nañu ne dangaa war a miraas sa bopp def ko ci bis bi xaar déwén waaye nag euh, Badara weeru safar rek moo doon weer woo xam ne damay wax gars yi ne leen buy jub si euh, yëf yi day dëgër. Mhm. pour nga jot ci du yomb. mais buy dugg rek. Mhm. yëf yi day daal wàcc. nga xam ne maanaam jot ko day yomb lool. Mhm. loolu xéewal gu rëy la. ba noppi nag boo jëlee li nga am def ko ci buy weer wii dee maanaam day yóbbaale say jafe-jafe. man de wax dëgg yàlla damay fu ma agsi rek safara moom fu ndax sëñ Tuubaa wax na ne euh, maa ngi leen di xamal ne képp koo xam ne ñaar ay nit bu ñu nekkee kenn ka di ca def kenn ka du ca def dana feeñ ca ka ci du def ak ka cay def. Mm. moo waral murit yëpp noonu lañ koy def da gis koo xam ne sax mënul. Mm-hmm. mais daf koy jéem. loolu waral kon munuñ koo ñàkk bañ a foog. Mm-hmm. bis la boo xam ne wax dëgg yàlla. Euh, damay wax gars yi ne leen ku mel ni seex Béthio Thioune yàlla na yàlla yokk leeram taasu ci barkeem ak njàmbaaram ak bëgg lu baaxam moo tax noonu la ko doon defee euh, loolu mu doon def noonu ku ci ne boo manoon da ko def mhm. man tey jii bu ma manoon loolu laay def dem ci àll bi mhm. di rey ay nag di ko def di bokk ak ñoom mënuma ko noonu mais bu suuru tam jotee rek laa mën a génn dem ci biti mhm. rey samay nag tam xaritoom ndoom euh, néew doole yi tamal naa sama njaboot yi léeg-léeg ma jël leen ci oto yóbbu leen ba ci àll ba ba ci biti tuubaa ay nit yoo xam ne bu ñu tiimee seen boolu ceeb du bokk ak boolu ceeb bi ñuy tiim fii ci Touba sama kër wala bu ñu tiimee leneen ma leen di yóbbu ñu xool di ñam ci ceeb yooyu mhm. di xam ne ñoom de sëñ Touba defal na leen ñu mën a am bàyyi bu leen dimbali mhm. mais am na ñuy sonn ci bitti ñoo xam ne seeni baay amuñu li ñu bu ëllëgee war nañoo xam ne war nañu mën a dimbalee lu yàlla teg seen loxo. tout à fait loolu laa leen di préparer di leen ko jàngal di leen jàngal mbay ak sàmm. Mm-hmm. loolu mooy suñu programme. absolument alors euh, honorable dañ la gis euh, si fan yu weesu nga jóg guddi dem ci ay xale yi nga xamante ni ñu ngi leen di wooyee ay fàqman loolu moom mooy moom mooy tur bi. Euh, nga am melokaan boo xam ne moom nga nekkoon ak ñoom euh, xaw xaw a bett ñenn ñi ci ci lu ñu la yaakaarewul woon euh, ñoo xamante ni peut-être xamuñu la nan la demee noonu. xam nga société dafay am solo ñuy fexe ba di jël li ci suuf. Mm-hmm. di ko yóbbu ci kaw. mais ñi ci kaw bu ñu toogee ci kaw rek ba ñu jël ñi ci suuf bu yàggee jafe-jafe day am ma gis ne Touba.

mais gis naa ci biti ay nit yoo xam ne li leen bàyyi ci biti wax dëgg yàlla seeni njaboot war na ko mën a saafal ndax koo xam ne lu ñàkk fayda ay ay ay ay problèmes yu bari nga ciy fekk mhm. da gis koo xam ne danaan la man de dañ maa jàppoon police ci benn xeex bi ma dellusee sama kër mënatuma faa nekk mhm. dangay gis koo xam ne dafa dem ci dëkk bi am jafe-jafe ci dara rek mhm. àddina jàpp ko wala dara ñu jàpp ko ci mu delluwaat ci famem ñu bañ koo yaatal mm-hmm. am na ñoo xam ne dañuy dellusiwaat fekk ñu tas seen jabar am na ñoo xam ne dañuy dellusiwaat ci kër gi mm-hmm. seen jabar ne dootu tëddandoog ñoom ci kaw laal mm-hmm. ba nga xam ne ci loolu lay doxe ba tas mu gën leen a yóbbu nag ñuy gën a màndi di gën a tux bon di def leneen ba mu indi leen ñuy wër di agressé am na ñoo xam ne sax dañuy dem ba far dof man nag dama jël benn programme boo xam ne xam naa wax naa ci ak ministre bi nga xam ne moo yor ministre de la femme pour mu gën a ñu gën a taxaw pour liggéey ci loolu wax ci ak ay nit yoo xam ne dañuy liggéey ci wàllu googu yu nekk dakaar mm-hmm. ak partout ci Sénégal yoo xam ne dañuy liggéey ci ñuy liggéey ci mbedd yi li ma ci jublu dama bëgg ñu programmer fexe di leen delloo ci seen kër yi mm-hmm. ba man di delloo ci seen waxtaan ci ñoom am na koo xam ne maa ngi ko jëloon Gédé la dëkk dakaar laa ko jëlee yóbbu ko Gédé mm-hmm. ci ay famille naxante ba mu dellu ci famille bi famille bi ne lu mat juróom-ñaari atam nii xamuñu fu mu nekk dañoo jàppoon sax dafa dee mhm. loolu def naa ko ci lu yàggul eh, loolu li tax ma def ko mooy bëgg nit ñi ñu mën a gën a jàppale ñooñu parce que loolu euh, boo gisee Touba dama koy wax chaque jour ñooñu mën nañ leen a jël ci tool yi ñu bay comme niñ koy defee comme ñu yori ferme te ñu ngi ñaan nag état Sénégal mu gën ñu jàppale ci suñu ferme yooyu parce que dana tax Sénégal ñu gën a mën a avancé ci yu jàppale xale yi ndax bu fekkee ne xale yu mel noonu danga leen am jël leen yóbbu leen ñu dem liggéeyi dana tax euh, ñoom ñu mën a yor seen i njaboot ëllëg te ñu nekk ci yenn yi. xam nga tey boo seetloo xale yooyu am nañ ay problème yoo xam ne boo ko xoolee ba ci biir da nga gis koo xam ne daan la ñàkk liggéey. ba tax na sama waa kër nawlootuñ ma moo tax ma def li day gis koo xam ne ak da doon móodu dem bitim réew ñëw ñu delloosi ko amut kayit ñu delloosi ko mu ñëw ci fameem jabaram dem baayam bàyyi ko yaayam bàyyi ko jël rakkam boo xam ne dafa xawoon dafa xaw a tane tuuti rek teg ko ci kawam mu dem ba jabaram mënatut a ci kër gi doomam mënatut a ci kër gi mu daal di génn kër gi. maanaam li nga wax ni yëpp société bi. Ah. ñooy soppi seen melokaan ba def leen wàll yenn yi ñu. ba def loo leen yenn yi man gis naa paa boo xam ne am na lu mat juróom-benn fukki at boo gisee da nga koy subir yooyu juróom-benn fukki at am na ko yor njaboot yori doom <laughs> mais àddinaa ko jàpp ba mu daw bàyyi fa njaboot gi parce que dafa yoroon nee na yoratul mu ne ci këru famille li mu yoroon. ñu di ko def yenn yi nee na mu di ko ruus nga xam ne léeg-léeg bu day dem wuti amul mu añ mu ñëw di añ ñu ne ko ñu wan ko ne ko añ bi waroo ci woon a añ mhm. wala duñ ko tibbal mu génn naaje duñ ko tibbal nga day ñëw yan doog ay fam ak yeneen mhm. ci yooyu ci la dem ba mu jege mu génn kër gi te am na juróom benn fukki mhm. gis naa fii benn waay boo xam ne moom it moodu moodu la woon dafa demoon liggéey ñëw yu mel noonu dal muy liggéey ci mbed muy liggéey li ñuy wax yor peel bàyyi peel moom daa xëy suba toog benn place ñu fekk ko fii ci mbedd mu tëdd ci naaju ci kër gi la tëdd ba naaj wi kër gu romb ko mu tëdd ko ne ci naaju biñ ko laajee ne ko lu tax <laughs> biñ ko yee pour mu del ba ñun dañoo mujj jàpp na faatu biñ ñëwee wax ak moom ndek mu ne faatuwuma de ñu ne ko da ñibbi kon wax doo jóg ñibbi mun moom du ñibbi. parce que ñaari fan a ngi nii muy fanaan al lekkul naanu te njaboot la lekkul naanu te rus naa dellu ci ñoom. ndax bu delloo ci ñoom aw xas la. kon nag askan wi war nañu gën a xool nu ñu def état bi xool nu mu leen def ba jàppale leen créer ay financement créer ay formation waxuma ne financement bu ànd ak formation. Mm. parce que financement bu ànd ak formation amul njëriñ. Mm-hmm. parce que day yàq rek. parce que bu ëllëgee koo jox financement boo ànd ak formation ci kaso bi ngeen di mujj. Mhm. ci yoon rek ngeen di mujj. Mhm. kon nag loolu ñu ngi ñaan état Sénégal gis nañ ni muy financé nit ñi mais nañ gën a góor góorgóorlu ci nit ñi defal leen formation maa ngi wax ak ministre bi nga xam ne moo yor formation professionnelle Dame Diop. Mhm. maa ngi koy nuyu di ko félicité ci taxawaayam. nee naa ko monsieur le ministre il faut ngeen gën a góor góorgóorlu ci formation ñi nga xam ne dañuy def ay financement di jegee ministère boobu. buñ amé financement yu war a fenn ñun ne leen former leen ñoyu mhm. bu leen formé bu paré ñu jox leen financement yi xolul lu yomb la tay ji dama lay xol dama lay expliquer bu dé ci mbay bo dimé fi ci sama biir kër gi salat si may si may euh, magalé mi ngi fi ñu ngi ma bay mhm. bo noppé man na la ko won nga xom xol mi ngi fi ma bay ci biir kër gi. Mhm. mais est-ce que tay bu ñu jigéen ñi li nga leen di joxe ay ñaar fukk juni ñen fukk juni ñu forme leen ci wàllu googu ñu def seen i programme ay mbayum salaat wala ñu yor ginaar wala ñu yar ñuy ñaw mhm. wala moo xam defar cere bu ñu defaree cere Sénégal problème bi euh, foofu dafa am il faut ñu leen di gunge. mooy accompagnement bi ñuy ah, wax parce que boo leen jëlee former leen ñu former leen ci wàllu céréale. Mhm. bu ñu paree ci seen wàllu céréale ñu financé leen bu ñu leen financé ñu defar. Mhm. ñu wane leen kii nga koy jaay. mu doon chaîne de valeur boo xam ne tax Sénégal man a gën avancer, avancé xale yi bañ a mën a bañ a jafe-jafe te loolu lu ma jortu ne euh, président de la république ak bëggum bëgg Sénégal jàpp naa ne dana ci bàyyi xel. ñu ngi ko koy ñaan. absolument honorable émission bi jeex na bu dee am ay kàddu la yooyu yow jox nit ñi comme màggalum euh, yóbbal ci safar bi lan lay don. waaw ñaar nga baal ma tuuti. Mhm. ñaari affaire rek laa bëgg a wax. Mhm. benn bi ci njëkk mooy maa ngi koy ñaan xalifa général de Mouride. Mhm. ak Serigne Bass Abdou Khadir mi nga xam ne ñoom yaakaar naa ne li ëpp ci dëkk buñ ciy wax ñoom la ñuy wax. Touba na am plan directeur ci wàllu assainissement. am plan directeur ci lu bari ñu xoolaat ko. bokk na ci dix villes yi nga xam ne moom lañ choisir pour affaire assainissement. wala loolu doyul xam nga dafa war a am plan directeur. boo xam ne plan lay boo xam ne danañ xam ne. Mhm. ku fi indi ci assainissement fii la jëm. Mhm. bu dee ci wàllu santé fii la jëm. Mhm. bu dee ci wàllu euh, <coughs> leneen fii la jëm. parce que Touba mën a am programme bu dëgër. dëgg mais bu buñ ko bëggee jël ko def ko nii ak ni Touba doone xur. ku xamul Touba rek parce que assainissement maa ko yoroon ci di ko mairie Touba. mais Touba xur la. boo gisee li ñuy wax trente mu njëkk bi lépp xur la. mooy point bas. moo waaw xur la. li ci ëpp day taal. boo ko génnee tuuti li ko ci ginnaawam day taa kon léegi il faut que ñu xool naka la ñuy def ba assainissement boobu nuñ ko mën a seeree. ba nga mhm. xam ne jafe-jafe du am. parce que tey dama la jox exemple tey euh, oto yi manque dëkk bi di manque ndox mi problème bi ñu gën a am mooy buñ manqué fuñ koy tuur. Mhm. mais buñ jëloon trente bi def ko assainissement mu circuler mu jël Touba yëpp ñu jël assainissement bi jaarale ko ci digg bi yaakaar naa fu ñuy manque da ngay am foo ko sotti rapidement. loolu it loolu wara def tali bi mu wër Touba. bu ko centraliser bu paré ñu jaar jaarlewaat ko ci digg bi li wax circulation magal do to am jafe-jafe. kon lolu ñi ngi leen di ñaan ñu gën ci bàyyi xel gën ñu ci jappalé euh, parce que lolu Touba da ko soxla itam. kon nak euh, ñi ngi sante di leen gëreum di wax ne safar dal mom euh, ni ko sëñ Bass Abdou Khadre waxé ñi nga xamné dañuy def safar ci weer nañuy xool nuñ koy defee bu baax a baax parce que baax na ci. Mhm. ndax euh, boo manee dañ sëñ bi dane boo manee nga def boo mënul nga dem ci ki man nga lekk. Mhm. kon dara la ci lu ci sëñ bi teg nit lu ko sonal amul. Mhm. kon nag ñi ngi ñaan ñi gën koo taxawal ñaareel biir mooy seetlu nañ ne Touba euh, li ëpp ci liñ ci jëfandikoo ci màggal. dañ koo jëggaani ceeb dañ koy jëggaani mhm. soble dañ koo jëggaani mhm. tamaate dañ koo jëggaani nag dañ koy jëggaani mhm. xar dañ koy jëggaani bëy dañ koy jëggaani ginaar dañ koy jëggaani kon bu màggal gi passé xaalis bi nga xam ne mooy koom bi ñu amoon day génnaat dëkk bi ndax ay nit a ñëw jaay si ko fi kon nag jot na ñu gën a xool ci Touba nan la def ba def fi ay programme yoo xam ne ak ay projet yoo xam ne dana gën a jariñ dëkk bi bu a yi mën ci liggéey te loolu dana tax lépp desaat ci dëkk bi mhm. parce que bu dee yari nag yeeg yeneen mënees na ko fee def mhm. bu dee yari xar mënees na ko fee def bu dee ginaar mënees na ko fee def mhm. parce que ñun ñu ngi koy def kon ñu ngi ñaan euh, état Sénégal mu gën a bàyyi ñu xel ci point yi boobu ma wax lu am solo la te yitteel nañu kon nag euh, ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci taxawaay bi parce que yéen man li tax euh, man bu ma yeewoo suba teel Dakar ak laa njëkk waxuma ko ngir yéen mhm. ku ma xam rek xam na ko ci man mhm. samay soxna yëpp dañu ciy tooñ Dakaractu laay njëkk ubbi mhm. lu tax ma di ko ubbi mooy dëggu bi ngeen nekk gisuma ci yéen dara lu ngeen wax rek man gëm naa kon nag ñu ngi leen di ñaan loolu ngeen gën ciy góorgóorlu parce que loolu suñu njariñ la tout fait ndax bu ñu demee tey ba site yu bari boo ci wax man am na site yoo xam ne duma ko xool luñ ca wax gaw ma wallaahi su ma gisee beneen sit dara damay gaaw xooli Dakaractu bu ma ko fa gisul dama naan amul te kenn mënuma koo gëm loo su ma ko gisee Dakaractu gëm naa ko kon na ngeen gën a lu gën a ba xel ci loolu xam ne nit ñi ngi leen di bàyyi xel absolument nit ñi ñi ngi leen di bàyyi xel ah te loolu ñu leen bàyyi xel organes yu bari dañoo yàqu ndax lu tax mooy guerre ak ragal ay nit yoo xam ne dañoo jàpp ne làmmiñ wu ñaaw la ak xase ak wax nit lu ñaaw xas ay sëriñ di xas ay kilifa di leen saaga loolu moo nekk ci yenn siit yi yéen nag nekkul ci yéen kon nak maa ngi leen di ñaan lima lima li ma gëm rek laa wax mhm, mhm. maa ngi leen di ñaan gën ngeen gën a lu ci li mhm. gën ci taxaw te gën a ñun sénégalais yi nga xam ñun information mo ñu ñor seen site bi ñuy wax dakar Dakaractu ñor nañ absolument jërëjëf jërëjëf euh, sëñ Abdou Lahad Seck euh, ñu gën ko xam ci turu Sadaga honorable député ci fàttali mu ngi woon ci 12e législature bi ah. ñëwaat encore ci 13e législature bi nga xamante ni le président Moustapha Niass moom moo ko jiite. Je lañ doon euh, ce numéro spécial bu redevabilité version safar bi ko également ñi ñu doon techniciens yi nga à la réalisation et à la présentation de ce numéro de redevabilité jox leen euh, dig version safar d'ici là comme ni ma koy l'information continue sur la référence Caractère. merci beaucoup